Assalamu alaikum, Boko Internodi, amati Matimbekte jàkkaarloog yéen ci le vrai journal TV fas yéene waxtaan ak ak nomination yi nga xam ni conseil des ministres bu mujj bi te mu jëm ci yenn ci direction générale Nous ñu koy tàmbali nag ak bu suñu Natango, suñu xarit suñu frère Pape Alé Niang di ko ndokkale ndaxte yeyoo na ko ci njàng mi ci jaar-jaar bi ci xarañceem te mu nekk nitu principe man Pape bi ma xam de te liggéey ak moom yàgg liggéey ak moom xam naa ni jomb na yore RTS bi nga xam ni moom lañ ko dénk comme ñu bari ci ñu ko jiite woon yore woon sénégalais nag yàgg nañu ŋàññ taxawaayu RTS waaye bu yoboo ñu dalal seen xel ak Pape Alé mi ñu fa yóbbu bu fekkee dañ ciy xaar tëyin wu bees ak yorin wu bees mën nañ koo séntu ci Pape Alé mu des rek ñu ñaanal ko yàlla mu woyofal yan wi bu ñu dellusee nag ci nomination yi am na ñu ko ŋàññ teg ko ci ni lu tax président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am jaareeluñu ko ci appel ak candidature comme ni ko Pastef digle woon dig ko sénégalais euh wayé nak li Pastef wax ci mbirum appel d'offre pourtant dafa leer nañ bu ñu demee ci page 45 bu programme coalition jomay président nga xamni mom lañu présenter won présenté sénégalais pour ñu far leen ci bop réew mi page 45 ba lañ ci wax dafa leer dañ ni yenn ci yenn poste yi dinañu ko jaarale ci appel à candidature waxuñu poste yëpp waaye yenn ci yenn poste yi mel na ni nag liñ tàmbalegum loolu lañ jëfe rax ci dolli conseil des ministres bi am bu yàggul 17 avril président Bassirou Diomaye Faye delluwaat na ci mbirum appel à candidature boobu fàttali président premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement wax li nga xam ni moom la ci namm soññu premier ministre ngir mu préparer benn projet de décret boo xam ni mooy jëmmal mbirum appel à candidature waaye ci yenn poste yi waaye comme mbir moomu pareegul est-ce que dafa war a tax président Bassirou Diomaye fay toog rek ba a jël benn décision jëm ci direction générale yi te mënul jëfe sañ bi nga xam ni moom la ko constitution may bu ñu demee ci constitution mooy charte ndey réew mi article 38 li mu wax dafa leer nañ dafa ni président de la république moom mooy njiitu administration moom mooy njiitu armée te moom rek la ñu may sañ-sañ mu name ci poste yépp moo xam muy poste civil moo xam muy poste militaire loolu la constitution bi wax te mel na ni nag Bassirou Diomaye fay président de la république ndogal gii mu jël deful lu dul jëfe sañ-sañ boobu ko constitution bi may léegi nag li ci am ba am mooy am nañu ñu jóg di ko ŋàññ naan da ko waroon jaarale ci appel à candidature waaye gun ci mbir moomu décision bi mu jël xel mun na ko nangu tombeek surtout nak mu sëkk ko ak nguur go xamni wala ay directeurs généraux yo xamni comme xam nañ ne dañuy dem man na ñu sax jukte yak kon kon mu lul tok rek ni yàcc ni yafar baña jël ben décision de nomination gis nañ bu yagul président Macky Sall mom ci boppam laata muy dem jël na ben décision boo xam ne dafa yaatal mbirum passeport diplomatique yaatal ko ba ci ancien ministre yi loolu indi jafe-jafe ci nguur gu bees gi waaye li ci gën a doy waar mooy juróom benn fan rek laata muy jóge ci bopp réew mi xaatim na benn contrat de dessalement ak ay sawu saoudien lu toll ci 459 milliards muy loo xam ne weer wu nekk dina julal réew mi 45 milliards yu ñu génne ci gafaga Sénégal waaw loolu bu ko président Bassirou Diomaye Faye gisee est-ce que day toog rek bàyyi ñenn ñi direction générale yi nga xam ni xëy sax sabotage mën na am ci ñuy jëfe parce que xam nañ ni dañuy jeexal dañuy dem lii rek a am li am ba des kay mooy président Bassirou Faye Diomaye Faye sax dañ ko waroon na njukkeel reconnaître méritam moo ñi mu andal ci bi mu nangoo lenn ci constitution article 38 jaare par appel à candidature loolu la est digoon loolu moo ci page 45 bu euh, programme jomay président itam le président de la République li conseil des ministres nomination yi nag toll ci fukk ak juróom tax mook ñi critique bi nga xam ni nañ ko nee nañ ay way politique la jox ay poste de nomination waaye léegi laajte bi est-ce que nga parti politique amoo compétence amoo loo jàng mënoo am benn wàll ci réew mi buñ la bi ci si nous avons ba tey ci conseil constitutionnel une constitution suñu constitution d'Afani, parti politique et ak coalition de partis qui dañuy concourir à l'expression du suffrage universel Je ci nit ci parti lay nit pour solliciter des suffrages des Sénégalais pour jot ci n'est aux affaires

dem laaj baatu askan bi tax ñu yegg si ba kii tey nekk président la république que la nekk premier ministre donc loolu itam wax dëgg yàlla jeenwul maanaa ci ñi nga xam ni ñoo ko yëkkati di ko duur baaraam nguuru président Diomaye Faye naan ay woy politique la jël moom président Diomaye comme ñu ko fi jiitu woon yépp parti politique la ñu samp jaar ci parti politique ñoom ak seeni ñoñu politique ba jot ci réew mi jël ay cër cëddale ko ku nekk nekk ca la nga nekk loolu rek fi am leneen amu fi mais li ci gën a doy waar ci ñuy ŋàññ ci nomination yooyu mooy man li may woowee un traitement tendancieux boo xam ni ñenn ci presse bi def nañ ko parce que dégg nañ ñu ni ci titre yi léeg les premiers reniements de PASTEF Manam, am avons ñu am nomination ak wax-waxeet yu il yu parti PASTEF traitement am nous avons titres am kuni, c'est l'heure des récompenses Manam waxtu neexal moye ci amna na keneen ku ni itam Diomaye fer ses militants et ses alliés mel ni lu ñuy séddoo am itam ku titré te foofu dañ ci taxaw les compagnons de lutte récompensés xam nga communication dafa nekk lu sew loo xam ni benn baat boo ko tànnee rek am na lu muy junj ki nga xam ni moo pourquoi nous les compagnons de lutte récompensés Et nous ni les compagnons de lutte responsabilisés Nous nañu wax loolu moo ne choix délibéré récompensé au lieu de responsabiliser nous sommes lu muy junj pour manipuler l'opinion bi que ba sénégalais

ñi ëpp ci ñoom ci fukk ak juróom-ñaar dañu nekkoon ci ab parti moo xam muy Pastef moo xam muy benn parti ñëw lëkkaloo ak Pastef nekk ci coalition gëm benn projet di ko jaay sénégalais yi wax ak ñoom ba yey ñi ëpp ci sénégalais yi ñoo ñu jox leen baat ñu aye war a DG waa ñooñu est-ce que dañ leen naan rek jàll leen fële toog. bi nga xamee ni léegi ñëw nañ pour jëmmal projet bi jëli ñeneen ci àll bi ñoo xam ne mosuñoo ànd ci projet bi waaye mosuñu koo gëm ñëw jëfe ko non ils sont responsabilisés parce que projet bi gëm nañ ko gunge ko bu ñu yegsee nag ba ci doxal ko kenn waru leen ci jiitu li ñu war a jàpp mooy fii dara ñori fii ba ñu koy màcc ñii

am koppar te it du reculer devant rien pour manipuler une certaine place et l'opinion pour am li ñu bëgg il faut que donc ñu bàyyi xel loolu waajal ci seen bopp bu baax a baax fii ñu jëm mbirum communication bi lu ci am solo la am na noo xam ne bu nit ñi taxawee rek am na lu bëri lu muy yàq ci seen taxawaay ak seen liggéey beneen enseignement bi ci mën a tiré mooy taxaw sax samp nit ñi jógte lii est-ce que réellement bëgg nañ senegal bu ñu ko waxee de luy jafe gëm lay doon li ko waral mooy bu fekkee sénégalais yi dañu samp président bu bees tàmbaleegul sax waaye lu mu yëkkati ñu xëpp ci kaani am ci sax ñoo xam ne dañoo yéene mu lajj kooku ku ni yaa ngi koy def am taxawaay bu mel noonu ba pare ni bëgg nga sa réew. wax dëgg yàlla di jafe gëm waaye nag dafa am lu olof yi di wax olof yi nee nañu léeg nit ñàkk ba pare ñànki dafa mel ni nag ñenn ci ñoom loolu moo leen dal mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci seen chaîne la vrai journal TV di leen sant di leen gërëm pour topp bi ak bàyyi xel bi di leen soññ itam ba tey ci abonnement yi ngeen wéy di ko def di leen jox dig ndaje balaa yàgg rek wasalaam.